mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu indi ay leeral ci kaddu yi bàyyeekoo ci góor gi waaleykum salaam wa rahmatullah Ahmad muy wax yoo xam ne bëri na ay njaxas bëri na ay lënt te ñi koy déglu bu doon daraame rek doon na doy yëkkati benn baatu laabire jëmee ci moom waaye ñii déglu Dramé te seenum njàng ci lislaam seenum njàng ci lislaam soriwul bam di leen yóbbee ak sikk sàkk ñoo tax ñuy laabirante ngir yàlla kàddu yi nag li ci ne ci ay njuumte bari na bokk na ci weddi gi Dramé weddi dàq sang ab néew wax ne bokkul ci lislaam lislaam diglewu ko waaye moom mi ngi koy ñaawlu jaaduwul du lu ñu war a def bokk na ca mu wax ne masiix dajjal amul bokk na ci njuumte yi ay aaya alquran yu mu firi jox leen maanaa yu soreg lool ak ya taxoon ñu wàcc firi mu wéradi mu joonu bokk na ci njuumte yi weddi gi mu weddi munkar ak rek ak laaj gi ñuy laaj nit ki ci bàmmeelam weddi mbugalum bàmmeel yooyu yëpp ay lënt la yu matal leeral Dramé nag buñ fàttalikoo fam tàmbale woon ak ñun fam tàmbale woon wax na lislaam ñëwul ngir folli benn diine wax na diine yahuud ak diine nasaraan diine yëpp wér ba tey comme ni lislaam wéree nit ki mën naa doon ab nasraani doon ab jullit bu faatoo texe nit ki mën naa doon ab yahud doon ab jullit ak njaxas yooyu mu waaye wax yu jéggi da yam tegoon ci saxaaba yi rawat na ku mel ni Omar ibnul Xataab ak Abu Hurayra yooye mu ca te mu ku ne dara du ca dëgg ak weddi gi mu weddi sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey mi ngi continuer di ko weddi donte léeg-léeg mu daw di wax ne weddiwuma sunna jëf sunna wax laay la laa gëmul ba fii mu yegg si tey weddi àtte ak yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xabaar muy xew-xewi barzaq ca biir bàmmeel yooyu muy weddi ku ko bàyyi xel da ngay xam ne daraame yebu na ci gaal goo xam ne fa muy teeree ji waxuma du neex ay bokkam waaye du ko neex moom ci boppam te daanaka nag ma ngay bëgg a teer ndax yii mu dàq ku ko dàq ca lislaam bu sa diine doonoon kilo deseetoo lu mat liibar daraame nee na sangam néew moom da koy ñaawlu rafetluwu ko lislaam jàngaliwu ko dañ ko war a bàyyi jaaduwul loolu jërul guddali wax ndax bu dee gëm na bu dee loolu muy wax lu mu gëm la bu ko neexee moom bëggul ku ko sang waay waay na suñ boroom guddal aw fanam ba gindi ko saxal ko ci asiraatul mustaqim ba muy wuy ji boroomam wuy ji boroomam ci pas-pas bu wér ci wax ju jub ak jëf ju jub bokk ci way texe yi waaye na na na na wax ni moom bëggul ko ko sang rek bàttali ko ñi mu ko war a li te bu boobaa ndax ñoom dana war ñoom ñu wéyal dénkaane boobu wala loolu yeneen masala la wax ji wax ji mooy Dramé dafa wax ne moom fekkee na kuy sangam néew jël loxoom dugal ci awraay néew ba di ko làmb loolu jaaduwul sangam néew nangam nangam yow bu dee fekkee nga xanaa taxawoo woon di seetaan fu ñuy sangam néew kenn du sang néew ñiy sang am néew mën nañoo limu di jàppalante kon da bokk. naam da ngaa bokk ci ñuy sangam néew am ci yéen ñu doon sang ku def lu jaaduwul waaw ndax loolu mooy waral ñépp war a bàyyi sang néew fekkee na kuy togg ab ceeb nam ko doon toggee baaxul kon bu fi kenn toggati ceeb xaraam na togg ceeb bu fi kenn lekkati ceeb lii waxuma la du diine waaye du xel borom xel mu baax wërta wax lii kon ba nga fekkee kuy sangam néew def lu mu war def man naa am daa xamul yow mi jàng xam lu tee nga jàpp ci loxoom laabiré ko ne ko duni nii du lislaam bëggewu ko nii waaye seetaan ko jugee fa ñëw tey naan fekke naa koy sangam néew def nangam ak nangam kon sang néew baaxul jaaduwul mel ni koo xam ne yow say jaam yoo xam ne yaa leen bind ngay waxal walla saw xeet woo xam ne dañ laa yónni ci ñoom ngay waxal dangaa yor sa sharia bopp ndax lislaam ku ci wax ci àtte yi waay waay dee ko delloo ci alquran ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delluwaay mooy loo rafetlu rek loola moo baax mooy diine loo ñaawlu loola baaxul dañ ko war a bay subhanallah ayu diinin haada lii mooy ban diine ayu mantiqin haada moo tax damay wax ne Dramé waxoon nañ ko ko ca ba muy wax ci jàpp jàpp du maye laab jàpp du toj ak yam ci doon wax yëpp noonu nañ ko dramé li ngay wax du loo gëm du loo gëm de du looy dund te yow xam nga ne dundoo ko nii nga jàngalee jàpp ak yiñ nga ci wax nii yow jëfewoo ko ñi la xam jaxasoo ak yow di dajeeg yow ci barabu jullekaay yi jëfewuñ xam nañ ne li ngay wax du loo jëfe lu tax ngay wax nit ñi loo xam ne yow doo ko def lima taquluuna maa laa tafaluun kabura maqtan inda allahi an taqulu maa laa tafaluun lu tax ngay jàngal nit ñi bëgg leen a def loolu loo xam ne yow jëfewoo ko moo tax ci sang ab néewit ñi ngi jàpp ne loola rek mooy lila la dal li ngay wax ni du loo xam ne gëm nga ci dara wala boo ko gëmee waay waay defal ni ñi mel ni yow def waxoon naa ko drame yii muy wax ni moo ñii wax di jam lislaam ak jafe ndeem du lu jomb kenn mën a indi lu bees tey yépp yu ñuy wax rek am na ñu leen ci jiitu ñu ko wax am na ñu jeexal seen dund ci yu mel noonu barki démb yàggul soxna soosu dëkk misra te gudd fan lool waaye dundam gi yëpp mu xeex ko lislaam wax ju bon lënt ñaawteef wu ne mu jëmee ko ci lislaam ba ba muy dee mu bàttali ne buñ ko sang buñ ko jullee buñ ko defal dara lu ñuy defal ab jullit ata yomb yow kay bu dee bëggoo ku la sang yàlla na suñ borom guddal saw fan ba balaa ngay wuy ji sa borom yàlla na yàlla defal la defal ñu ko fekk ñu faatu ci pas bu dëppoog pas-pas bi yonent wa sallam jàngal aw xeetam di wax wax ju di jëf-jëf bokk ci way na yeex waay waay waaye yow kay boo bëggoo ku la sang neel buñ la sang rek nga bañ a tooñ jullit nii bañ indi ci lislaam àtte bu yàllaa ko yonentam indiwul beneen bi muy weddi masiix dajjaal masiix dajjaal bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal ay aw xeetam mu bokk ci xabaar yi mujjug jamono dajjaal mooy jëmm joo xam ne ab waxkatu lu dul dëgg la ab yàqkat la kuy fitnaal nit ñi ci seen diine ci seeni pas-pas loolu war nañ koo weddee fu ne ci àdduna bam Sénégal gi ndax ab dajaalul akbar balaa muy feeñ masiix dajaal dafa bokk ci yonent bi daan muslu di ko di ko di ko xabaar aw xeetam di leen ko musluloo dajaalul akbar nag balaa muy feeñ dajaal yee ko bari ak dajaal yee ko bari jamono ju ne barab bu ne dajjaal yaa ngi fa di yàq diine ji groupe whatsapp yi dajjaal yaa ngi ci biir groupe yi ñu ngi ubbi seen gémmiñ di wax di tasaare ay ojo ay lënt di sikk sàkkaloo jullit ñi ci seen diine fekk lu sax ci lislaam ñu di ko weddi bëgg dugal ci lislaam lu ci bokkul dajjaal yee ko bari dajjaal yee ko bari dajjaal bari ah xëy na wa wa min shiddati zuhuri al mooy bëgg a dal Baye Dramé ci lii waaw léeg nit ki li ko jege lool lool lool ba jéggi dayoo mën naa am dootu ko gis ngir jegewaay ba rawat na am na moom daal dajjaal daal fu ne lañ ko doon a weddee ba mu des ba mu des fii weddi gim weddi nag munkar ak nakiir balaa ñu ciy ñëw balaa ñu ci ñëw aaya alquran yim tegtaloo ngir dàq mbugalum bàmmeel comme Dramé moom wax na ko ci benn ujum day da amul amul benn istiqraar ci diineem saxul ci dara lu dul mi ngi mi ngi làmbatu lu ne mu dugg ca lu ne mu génn ci wax na ko ci benn waxam doon na fi salafiste doon na fi quraan doon na fi suuf yi doon na fi chiites ba fii mu yegg si tey doon li mu doon doon li mu doon tey nii war na ko wutal aw tur nag li ko yóbbee loolu yëpp li ko yóbbee loolu yëpp mooy di fooye alquranul karim ne da ngay firi alquran te doo dellu ci benn boroom xam-xam doo dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sa xelum bopp te yow alquran jooju ngay bëgg a firi waxuma la firi waaye jàng baat yi njàng mu wér tëna la mënoo ko mënoo jàng baat yi xamoo aay bi lu ko tax a wàcc xamoo wax ji fam jëm looloo tax nga ñemee fekk borom bi di wax wala taqulu li man yuqtalu fi sabilillahi amwaat bal axyaawu walakin la tashurun nga ne loolu mooy yéeféer yi ñu rey ci xare subhanallah Dramé ci biir waxam day weddi mbugalum bàmmeel ba noppi daal di koy saxalal aw nit saxalal ko waa kër Firawna saxalal ko ñañ rey ca Badar ak weddi ko ci ñeneen ñi nga xam ne moom daal moom ci boppam xamut li wax lan la xamul résultat wu waxam lan la ndax bu waxee weddi weddi ba nga ne weddina mu wëlbatiku saxal ñëw weddi waat doonte weddee ko tax a jóg waaye day am aaya alquran yu taxaw ci kanamam mënut leen a teggi amul fenn na mu jaar mu nangu saxal bu fa jógee weddiwaat la mu waxoon yépp xadis yi nag moom xadis yi moom mooy fowukaayam bi gën a mag bu ko neexee ne sunna wérul sunna xawliya amul moom gëm na sunna fi'liya waaye gëmul sunna xawliya luy loolu xadis boo xam ne ñaari jullit mësuñoo werante ci kaw suuf wér naak wérul mbooleem ñi seen xam-xam màcc ci xam-xamu xadis dëppoo nañ ci ne wér na ba lislaam di lislaam ba tey bu ko neexee taxaw ne wérul ngir dëppoowul ak xelam moom Dramé fu mu soxlaa xadis ngir dëgëral nag lu mu bëgg a wax donte xadis ba wérul ñëpp jam nañ ko bu ko neexee jëli ko teg teg taloo ko moo tax moom daal mi noonu weddi gim weddi mbugulum bàmmeel bokk na ca lam layee te ñi mel ni moom daan ko weddi yàgg koo layee mooy laa aqaaba qabla xisaab yàlla balaa mbugal kenn dalay xisaab ba noppi comme nag daraane quraan yi la waaw nit ñi jullit bi nga xam ne moom day jàng lislaam ca fañ ko war a jàngee di dellu ca ballalukaayu àtte yi muy alquran ak sunna kooku wax ak moom ci masala yomb na lool waaye aqlaani bi nga xam ne moom xelam rek rek lay jëfandikoo kooku booy wax ak moom faw nga wàcc ci terrain boobu euh, leeralal ko ay lëntam ci xelam ki nga xam ne it nee na quraan yi la te bu bu rek mu wax ko taxaw ci masala yi boo ko indilee xadis mu mu xas la nela la da ngaa weddi yàlla ngir mën a dëggal xadis ku mel noonu nag comme ni mu ko defee ci masalam yi dañuy ñëw ak moom ci alquran danañ la indil drame ci alquranu karim fukki aaya ak lu tegal yoo xam ne yépp day saxal mbugalum bàmmeel xadis yi nag boo ko doon misaal danga naan daa mel ni taw xadis yi wax ci mbugalum bàmmeel xadis yi saxal mbugalum bàmmeel dañoo mel ni taw muslu gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon muslu mbugalum bàmmeel ci ay ñaanam waaye xabaar gi ko xabaar ay saxaabaam xabaar gu mu sax ñoo xam ne ña nga leen di mbugal ci seen biir bàmmeel yooyu bari na dafa mel ni taw léegi Dramé ne na wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwaatum bal axyaawun walakin la tashurun nee na loolu mooy ñi nga xam ne dañ leen a rey ci xeex ay yéeféer yu doon xeex bañ rey leen ñooñu yit fii sabilillahi lañ leen rey comme wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatam bal xayaawun inda rabbihim yurzaquun foofu mooy jullit ñi nga xam ne dañ doon xeex ñoom it bañ rey leen ñoom ñi ngi ci xéewal ndax deewuñ comme ni ko alquran waxale ñee it ñoom ña nga ca mbugal ndax deewuñ lii du firi mu wér du firi mu baax borom bi ba mu waxee ne bu leen wax niñ rey ci yoonu yàlla niñ rey ci yoonu yàlla mooy jullit ñi yëkkati seen ngànnaay di xeex ngir yàlla waaye yéeféer bu yëkkati ngànnaayam di xeex lislaam di xeex ak jullit ñi kooku ci sabilu seytaan la nekk comme Dramé moom dafa mel ne xàmmeewut yàlla ak seytaane moo tax mu fi daan wax waxam yooyu ba muy weddi tudd yàlla yeeg yu ni mel di wax ne boo ne boo ne yaa qaxaaru wala yaa latifu seytaane ñëw yow yàlla ngay woo waaye Dramé nee na seytaane muy ñëw wuy si la yàgg naa feeñ ci waxam muy jaxase yàlla ak seytaane yéeféer bu ne ci kéeféeram gàddu ngànnaayam di xeex diine yàlla gi mu ne kooku fii sabilillah subhanallah kooku naka la nekkee ci yoonu yàlla kooku ci yoonu seytaane la nekk kon wala taqulu li man yuqtalu fi sabilillahi amwaat bal axyaawun walakin la tashurun loolu ijmaal mooy ñii jihaat ñii xeex ci yoonu yàlla ba ñu rey leen alquran ne bu leen wax na ñu ñu faatu nañ ñu ngay dund doonte yéen xamu leen loolu la tafsil leeral ko ca walaa wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaata ñi ñu rey ci yoonu yàlla bu leen njort ne dañoo dee bal axyaaun inda rabbihim ña ngay dund fa yàlla seen borom yurzaquun ña leen di wërsëgal farixiina bima aataahumullah ña ngay bëgg di kontaan ci li leen yàlla jox di bëgg ci ñi topp seen gannaaw te yegg seeguñ ci ñoom kon na leer ne Dramé yàgg nañ ko wax day wax rek jàng benn aaya bu aaya ba jubloo penku moom mu jublu sow wax la ko neex ki xamul yaakaar ne alxuraan wax lii fekk déedéet Dramé jàng na donte na muy jàngee baaxul ma ngay yàq aaya ba aaya ba wax la neen moom mu wax lu wuuteeg loola ngir sax ngir ngir bëgg a nax ki koy déglu ci aaya boobu mu tudd tëj wala li muy wax dara léegi nag am na ci alquranul karim comme nañ ko waxee aaya yu bari aaya yu bari yuy saxal mbugulum bàmmeel ñu ñëw ci benn par benn bul waru yow miy déglu bul waru mukk ci aaya alquran yi Dramé di jàng ngir tegtaloo ko ngir dëggalee ko yi muy wax te aaya di wax la neen lu jotewul ak li muy wax dara faw ñu xam ne amul ci alquranul karim benn benn aaya buy wax ne mbugulum bàmmeel amul benn aaya buy junj wala mu wax lu jege loolu amul ci alquran safaan bi moo am danañ ci ñëw lu ëpp fukki aaya ci alquran yoo xam ne yépp day tegtale mbugulum bàmmeel moo tax lu mel ni yow annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaaha nañ bàyyi xel nag idil qiyaamatu qiyaamataani sucra mamaatu kulli ma insaani wa bacdaha alkubra wa tilka nafqu fi suuri laa yaati mabici fasx bés penc dafa am bu ndaw ak bu mag nit ku ne bésub deeyam keroog ba mu dee loolu mooy bés pencam bu ndaw bés ba àdduna yi tukki muy bés penc bu mag ba kon képp ku dee rek yaa ngi wàcc sa wàccuwaay bu njëkk ci wàccuwaayu bés penc moo tax ñi doon dund ci àdduna nekk ci la leen neex nekk ci ak kéeféer ak di mooy yàlla ko fo ba dee dikkal leen buñ dundoon téeméeri at wala lu ko ëpp it day mel ni benn ngoon day mel ni benn ngoon lañ sax ci àdduna wala benn yoor yoor mën naa am sax ba ñuy dund ci àdduna ñi ngi ci ay xéewal walla ñi ngi doon dund ay jafe-jafe ay tiise ki naqar ay wéradi yu méttee métti nekk yéefar di dund jafe-jafe yooyu ba xëy dee jafe-jafe yooyu lu mu taroon lii nga jàkkaar lool tey tax na day mel ni yow ci benn ngoon wala ci benn yor-yor dong nga paase. bu dee ñi bés penc yasalunaka ani saati ayyaana mursaa bés penc bu mag bi ñëpp yi bokk ki dee nekk ci bàmmeelam ñi di ko mbugal téeméeri at junni at la soob yàlla bés pénc ci taxaw mbugalum bàmmeel lu mu tar tar mbugalum safara da ko yées gën koo bon gën koo métti fuuf moo tax mbugalum safara moomu day tax mu mel ni bàmmeel bee mu jóge ak lu mu fa yàgg-yàgg benn ngoon la wala benn yor yor la ci moom loolu lu leer la bul waru yëpp ci li mu wax ne laa iqaaba qabla al muy wax joo xam ne ñi mel ni moom làmboo pas-pas yi yàgg nañ koo wax yàlla du mbugal kenn te xisaabut la waaye faw ngeen xam ne xisaab ci boppam xisaab yu metti ci mbugal la bokk jëmmi xisaab rek mbugal la waaye taxe yi yàlla leen di fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasira yàlla nañ ci yàlla boole xisaab yasir mooy lan mooy tabshir rek wan la say jëf yu baax yi nga doon jëf ci àdduna yóbbu la aljana kon li tax ñu naan xisaab dëgg-dëgg ci boppam mbugal la yàlla xam jim xam sa lépp sag sag baax ak sag bon sag texee bi loola moo tax dara tënku ko ci faw mu xisaab la door laa mbugal te alxuraan dàq loolu weddi ko yàlla na nañu fii ci àdduna am na ñu muy mbugal xaaral leen dencal leen mbugal mu gën a metti ëllëg te bu ñu waxee ëllëg ma nga tàmbalee ca bàmmeel ba yàlla di àtte ñooñ aljana ne aljana ñooñ safara nekk safara jàngal alquran ca suuratu raad borom bi di wax aw nit ñoo xam ne dañuy def lu bon di bokkaaleeg yàlla ba dee ci pexe bi balaa ñuy dee yàlla ne lahum azabun fi lxayaati dunia lahum azab lahum ñeel na leen azabun mbugal yàlla daf leen di mbugal fan fi lxayaati dunia wala azabu laaxirati achaq wa ma lahum min allahi min waaq te bu mbugalum àllaaxira ñëwee mbugalum àllaaxira ma nga tàmbalee ca bàmmeel loola mooy gën a tiis mooy gën a tar amul ku leen di fegal mbugal moomu ci kanam yàlla azza wa jal naka noonu loolu bari na ci alquran waaye du ñaar di werante ñi yàlla di mbugal ci àdduna ku nekk nam lay mbugalee bari na kon balaa ngay weddi mbugalum bàmmeel ngir lan xisaab amagul mbugalum àdduna sax de alquran da koo saxal aaya baa ngi noonu ko ca kadaba alladina min qablihim fa ataahum aladabu min xaysu la yashcuruun fa adaaqahum allahu alxizya fi alxayaati addunia wala adabu laaxirati akbar law kaanu yaclamuun loolu ay aaya la yu bari ci alquranu karim kon faw ñu gëm ne ci àdduna moom lu sax la mbugalum dee mbugalum dee am na ñoo xam ne can nañuy dee rek mbugal la dee hin wa mbugal la loolu alquran moo ko saxal wa jaat sakratul mawti bil xaq dalika ma kunta minhu taxiid wa nufiqa fi suur ah kon mbugalum àdduna sax na ci alquranul karim waaye mbugalum dee sax na ci alquranul karim ñii am na ñu yàlla wax id yatawafa alladina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum nga xam ne ca nañuy deexe rek malaaka leen di dóor ci seen kanam ak seen gannaaw di leen wax ne tay tay tay di leen wax ne génne leen seen bopp génne leen seen bakkan tay lañ leen di fay mbugalam doye dal mbugalam doye de al yawma tujzawna adabal hoon kon mbugalum àdduna mbugalum dee mbugalum bàmmeel door a ñëw mbugalum bàmmeel li ci yonante bi sallallahu alayhi wa jàngale ci ay ñaan di muslu yàlla ak digal aw xeetam ñu di ko ñaan di muslu yàlla ci mbugalum bàmmeel waaye lim ko saxal wax na cib xadis romb na romb na ci ñaari xabru ne ñaari xabru yi ñu ngi leen di mbugal te lañ def bañ di leen mbugal de du lu rëy ne axa kay sax lu rëy la kenn ki ab rambaaj la woon yàqkat la woon daan jaxase nit ñi amma ahaduhuma fa kaana yamshi bin namimati wa amma al axaru fa kaana laa yastatiru min bawlihi foofu nga xam ne ñu bari dañ koy firi ci njuumte di ko firee suturloo ak nëbbu ca ba ñuy tur ndax waaye déedéet istitaar bokkul ak tasattur waxul laa waaye laa yastapiru istitaar ba muy tuur ndox dafa sàggan ba tuur ndox ma du du set day day sobel boppam maanaam ko koo xam ne daal daanaka fu mu toll mi ngi àndak ak sobe ngir càggante ca ba muy tuur ndox imma day yàkkamti eh, tuur ndox maa ngay génn jeexagul moom pare na ba ma ngay dem tuur ndox mi di di di wàccaat ci ay yéreem ci yaramam wala na muy tuure ndox ma ngay taqal aw yaramam te du ko raxas kooku nga xam daa taqoog sobe yooyu day waral mbugalum bàmmeel xadis yi bëri na buñ ñëwee ci alxuraan comme moom gëmul xadis gëmul xadis yi lu xadis wér wér boo waxee bu ko neexee mu ne dañ koo sosal yonent bi waaye moom gëmut loolu nañu jàng ci alquran ba yàlla di xabaar nit yonentu yàlla noox alayhi salaatu wassalaam ca suuratu noox lu borom bi wax mimma xatiaatihimu uxriqu fa udxilu naara waaw seen mbon seeni ñaawteef seeni bakkaar seen weddi yàlla moo tax lan uxriqu ñu labal leen gis nga ñooñu yàlla mbugal na leen ci àdduna ba noppi fa udxilu ca saasa bañ labee fa ca saasa rek udxilu naara ñu dugal leen safara moo tax bàmmeel bi rawdatun min riyaadil janna aw xufratun min xufari naar bàmmeel aljana lay doon wala safara rek ci gàttal ñii bañ leen labalee dee nañ lu ca topp fa udxilu fa ca saasa udxilu naaran ñu dugal leen safara falam yajidu lahum min dunillahi ansaara ñooñu ñi ngi ci mbugulum yàlla ba jantub tey ñi ngi ci mbugulum yàlla beneen aaya borom bi di xabaar nitu luut fa jaalnaa aaliyaha saafilaha wa amtarnaa alayhim xijaaratan min sijjiil yàlla wëlbati na suuf si seen kaw fa jaalnaa ñu def ñun yàlla aaliyaha la féete woon kaw saafilaha muy aji suufeem wëlbati dëkk ba këppaat ko ci seen kaw dee nañ lu ca topp wa amtarnaa alayhim xijaaratan min sijjiil ñuy taw ci seen kaw ay xeeri safara loolu ci bàmmeel la ndax bàmmeel kat buñ ko waxee tekkiwul fu ñu gas suul nit ki nit ki fam dee rek fam sax gannaaw deeyam loola mooy bàmmeelam ki gaynde ga lekk wala bukki ba biiru gaynde googa biiru bukki ba loola mooy bàmmeelam donte yëpp ci suuf lay mujj ndax gaynde googu day bee mujj ci suuf ka ca biir géej ga ka ba jeex ñooñu ñëpp loola bàmmeel la ci ñoom bul yaakaar ne ki ñuy xëyewal wala ki ñuy mbugal ci biir bàmmeelam jëmmam ji waaye rooxam moo tax ñuy wax xanaa ka doo wax ne ñii baleen yàlla raya ba noppi fa jaxal naa aliya saafila dee nañ daa wëlbatiku di taw ci seen kaw ay xeer yu bàyyee koo safara waaye xeer yooyu moom du leen lor du leen wàññi dara ndax dee nañ ba noppi mbugal la mbugal la moo xam ne ci seen mbugalum bàmmeel la ñetteel bi yàlla di xabaar aalu firawna aay bi moom nim leeree ci masala mi tax na duñ fi taxaw annaaru yuraduna alayha guduwan wa ashiya suba ngoon ngi leen di gaaral safara ñu ngi leen di gaaral safara wa yawma taqumu saatu kon ñu ngi ci safara suba ngoon léegi nag bu bés penc ubbi leen ay fenêtre safara deen ko gaaral suba ngoon wa yawma taqumu saatu bu bés penc bu mag ba taxawee ñu ne adxilu aala firawna ashadda al azab lii moo ñu xamal ne mbugalum bàmmeel lum métti métti mbugalum safaraa ko mbugalum ëllëg euh, euh, moo ko gën a métti fuuf foofa la ñuy fekk lan ashadd al azab donte bi ñu ne ci bàmmeelit ñu ngi ci yuraduna alayha guduwan wa ashiya ñeenteel bi asxaabul uxduud lu yàlla xabaar ci ñoom inna alladina fatnu almuminin walmuminat summa lam yatubu fa lahum azabu jahannama wa lahum azabu alxariq asxaabul uxduud ñooñ nga xam ne dañoo lakkoon ay jullit ñu gëm yàlla te defuñ dara lu dul gëm nañ yàlla rek yàlla ne dana leen mbugal ñaar yoon xadaabu jahannama walahum xadaabul xariq xadaabul xariq ci firim lenn ci boroom xam-xam yi mooy mbugal miñ leen di mbugal ci di leen lakk ci seen biir bàmmeel xadaabu jahannam nag mooy mbugalum alaaxira juróomeel bi juróomeel bi yàlla di wax ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam munaafiquun yooyu borom bi ne wa mimman xawlakum min al arabi munaafiquuna wa min ahli almadinati maradu ala annifaaqi laa taalamuhum nahnu naalamuhum sa nuadibuhum marratayn summa yuradduuna ila adabin adim dañ leen buggal ñaari yoon sa nuadibuhum marratayn dañ leen di buggal ñaari yoon summa yuradduuna ila adabin adim ñu door leen a delloo ca mbugal moo xam ne mbugal mu màgg fii li mufassirun yi wax ñaari mbugal yi mooy lan benn bi mbugalum àdduna la ñaareel bi mbugalum bàmmeel la summa gannaaw ñaari mbugal yooyu ñetteelu mbugal muy yuradduuna ila azabin azim muy mbugal mu mag ma mbugalum safara azabu jahannam kon aay bii it nastu la ci masala bi sa nuadibuhum marratayn marratan fi dunya wa marratan fi lqabri summa yuradduuna ila adabin azim muy adabu naari jahannam juróom-benneel bi walaw tara id yatawafa alladina kafaru almalaikatu yadribuuna wujuhahum wa adbaarahum wa duuqu adab alxariq dalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bi dallamin lil abid waaw yàlla mi ngi xabaar fii yéeféer ya nga xam ne ba ñuy dee malaaka yaa ngi leen di dóor maanaam malaaka yi ñooy dóor ci seeni xar kanam di dóor ci seen ginnaaw kon bugal ma tàmbali na ca ba ñuy dee ba ñuy ngëpp ba ñuy génnee seen rooxu lañ leen di mbugal ba noppi di wax ak ñoom wax joo xam ne rek moom it mbugal la naan leen buuqu azaabal xariq azaabal xariq gi moom lañ gisoon ca falum azaabu jahannam walum mooy mbugalum lakk ci biir bàmmeel loolu loolu ci yéeféer yi la waaye yàlla waxoon na ko ci munaafiquun yi ca fa kayfa ida tawaffatuhum almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbaarahum ca suratu muhammad aaya bii ci suratul anfal walaw tara isi tawafa alladina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbaarahum yéeféer yi la fa kayfa ida tawaffatuhum almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbaarahum munaafiquun yi la kon dàqu na yaakaar naa ne du daraame du kenn kuy sikk sàkk ku ñemee waxati ne laa xiqaaba qabla al laa azaaba qabla al xisaab te xam nañ gis nañ ne mbugal a ngi nii di am yàlla di mbugal ci àdduna di mbugal ci dee di mbugal ci bàmmeel bés penc bu mag ba door a taxaw ñeyoo mbugal mu mbugalaat leen ci safara nga xam ne mooy mbugal mi yées ci xeeti mbugal yi juróom-ñaareel bi walaw tara idi zalimuna fi gamarati lmawt walmalaikatu basitu aydihimu acridu anfusakum alyawma tujzawna azaba alhuni bima kuntum taquluna ala allahi gayra alxaq wa kuntum an ayatihi tastakbirun boo gisee keroog bi nga xamee ne tooñkat yi tooñkat yi moom yéefar yeeg munaafiquun yi jullit ñu sàggan ni ba ak texee di not leen ñëpp rek fii xamaraati moo te ci lëggi deeya malaaka yi tàllal seen loxo naan leen axriju anfusakum génne leen seeni roox génne leen seeni bakkan al yawma tay tay tay jii tay jii ngeen di dee tuuti zone azabul hum moo tax ñi xam yàlla xam nañ ne nit ki bu faatoo même buñ ko dencee ñaari fan ak ñett it moom benn fan al yawma tay tay jii benn fan du jàll lu dul bu dee ku texe la ma ngay xiwlu ca texe nga waaye bu dee ku texee bi ma ngay yëg ay mbugal ma nga ma nga ca mbugalum bàmmeelam doonte néew baa ngi nii dugal guñ ko ci bàmmeel bi léeg-léeg ñu faatu ñu yéexee ko ñaari fan ñetti fan wala semaine wala weer door koo denc bul yaakaar ne dañ koy denc ba noppi laaju malaayka yaag yay topp yépp door a ñëw déedéet benn fan al ma tay tay jii nga faatu moo tax fukki waxtu ñaari ñaar benn bés ba lu li mën a tuddee al yow mënta jàll lu dul rek mbugal ma tàmbali na bu dee ku yeyoo mbugal xéewal ya tàmbali na bu dee ko yeewee xéewal daan ñëwaat ci al yawma tay jii ngeen dee tujzawna ak tay lañ leen di fay azabal hoon bima kuntum taquluuna ala allahi xayral xaq mbugal mi góor gi daraame bàyyil xel maanaam di waxal yàlla loo xam ne du dëgg di indi ki diine yàlla ji atte yoo xam ne yàlla attiwu ko yonentum attiwu ko kuntum an ayaatihi tastakbiroon juróom-ñetteel bi juróom-ñetteel bi ci sooratul waaqia borom bi ne falawla ida balagati lxulquuma wa antum xiina idin tanduroon wa naxnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiroon falawla in kuntum gayra madinina tarjicunaha in kuntum saadiqin fa amma in kaana min almuqarrabina fa rawxun wa rayxaanun wa jannatu naim wa amma in kaana min ashaabi alyamini fa salaamun laka min ashaabi alyamin wa amma in kaana min almukadibina addalina fa nuzulun min xamimin wa tasliyatu jahim inna hada lahuwa xaqu lyaqin fa sabbix bismi rabbika alazim subhaana rabbi alazim subhaanallah nit ki ba ak ruuxam di génn waa këram ay mbokkam ay doctoram ña ngay xool yàlla ne maa leen ko gën a jege gis nga fii dafa def nit ni ñetti xaaj muy zalimun li nafsi ak muqtasid ak saabiqun bil xayraat muy assaabiquun assaabiquun ak asxaabul yamin ak asxaabu shimal borom bi ne fa amma in kaana min al muqarrabin bu dee ca saabiqun bil xayraat ya assaabiquun assaabiquun ya la bokk ba muy faatu noona fa rawxun wa rayxaanun wa jannatu naim bu fekkee ka muqtasid ñetti digg la bokk muy asxaabul yamin wa ammaa kaana asxaabul yamin fa salaamun lak waaw ci jàmm ma ngay dem ca jàmm yooyu yooyu bu ñu ko jot gi mayee daan ci ñëwaat jullit bu faatoo lan mooy xew gannaawam lan mooy xew ci biir bàmmeel yooyu ay mbir la ah bu dee nag ca wayte aydiya zalimun li nafsihi la asxaabu shimal la wa ammaa kaana min almukadibina dallin fa nuzulu min xamim wa tasliyatu jahim ca saasa rek mbugal maa ngay tàmbali juróom-ñeenteel bi juróom-ñeenteel bi wala taqulu li man yuqtalu fi sabilillahi amwaat bal axyaawun walakin la tashurun yàlla wax na fii ci suratul baqara ijmaalan ñiñ rey ci yoonu yàlla mooy jullit ñi doon du na ko dara amee firée woon de yéeféer yi ñu rey ci yoonu yàlla amul benn yéeféer bu ñu rey ci yoonu yàlla yéeféer bu xeex ba ñu ci nga dee kon jullit ñi doon xeex ba ñu rey leen ci yoonu yàlla yàlla ne bu leen leen jàppee ñu dee bu leen wax ne dee nañ bal ah yaaw ña dund yéen yéen a yëgul yéen a xamul walakin laa tashurun loolu li muy wane mooy naimul qabri naimul barza xéewalu bàmmeel fu mbugulu bàmmeel amee xéewalu bàmmeel am na donte nag nit ñi dañuy waxtaane mbugulu bàmmeel lu bari waaye xéewalu bàmmeel it lu ñu war di jàngale lu ñu war di leera way texe yi ci seen bàmmeel ñu ngi ci xéewal gu rëy xoolal ki doon jihaat mën naa am bomb lañ ko sànni aw yaramam lépp daggati na yàqu na tasaaroo na yàlla ne deewut bal axyaawun ñu ngay dund loolu aay yu bari tegtal na ko ci alxuraan aay yi tegtale xéewalu bàmmeel ci seen bopp dañuy tegtale safaan ba muy mbugalum bàmmeel comme aay yi takkale mbugalum bàmmeel bi seen safaan day takkale xéwalu bàmmeel am na ca suuratu muhammad walladina qutilu fi sabilillahi falan yudilla amalahum sa yahdihim wa yuslihu baalahum wa yudxiluhum aljannata arrafaha lahum waaye Euh, wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun waxoon nañ ko loolu ba tey bokk na ci aay yi koy tegtale farihina bima aataahum llahu min fadli wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min qalbihim alla xawfun alayhim wala hum yaxzanun yastabshiruna bi nicmati min allahi wa fadlin wa anna allaha la yudiu ajra almuminin aay bi saxal na ne shuhadaaw yi faatuwuñ waaye ñi ngay dund fa yàlla seen borom ñu ngi leen di wërsëgal booba ñi ngi ci barzaq ñi ngi ci bàmmeel yi ña ngay bég ngir lan xéewal yeneen di yàlla jox ña ngay fàttaliku di xam ñiñ bàyyi gannaaw di leen di leen di di leen di bég di beneen aaya ci alquran walladina haajaru fi sabilillahi summa qutilu aw maatu la yarzuqannahum allahu rizqan xasana wa inna allaha la huwa xayru raziqin waaw xéwal bu rafet boobu nu muy mel la yudxilannahum mudxalan yardawna wa inna allaha la alimun xalim aay bi it wala ñaari aay yi ñi ngi saxal ne képp ku ñu rey ci yoonu yàlla képp ku faatu ci texee bi doonte reyuñ ko yàlla nga koy wërsëgal ca barzax rifqan xasana la la la yarzuqannahum allahu rifqan xasana wa inna allaha lahu wa xayru raziqin wërsëg wu rafet woowu ci bàmmeel teewul waneen wërsëg waneen xéewal wu rëy ma nga leen di xaar ndax yàlla mooy xayru raziqin ëllëg da leen di dugal aljanna la yudxilannahum mudxalan yardawna wa inna allaha la alimun xalim wa min waraihim barzaqun ila yawm yubaasun wa min waraihim barzaq loolu rek gis nga aaya boobu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzaq waaw xoolal ki dee ki nga xam ne dee ñëwal na ko xata ida jaa adul mawt qaala rabbi irjiun laalli amalu saalihan fi ma tarak xam ne dee ñëw na fa kashaf naa yi dañ na wuññil nañ ko lépp mu gis jàkkaarloog bugal ma di mébéti delluwaat ci àdduna man xaw ma nu ab julit mën a jaagee léegi di sikk sàkk mbugul am na wala amul di mébét delluwaat ci àdduna naan rabbi irjiun ndax ma defaat lu baax yàlla ne kallaa innaha kalimatun huwa qaa'iluhaa waaye wa min waraa'ihim barzaq barzaq mooy liy diggale li dox diggante wàccuwaay boobu nga xam ne mooy wàccuwaay bu njëkk ci wàccuwaay yowmal xiyaam nga xam ne bi nit ki génne àdduna rek mi ngi ci wàccuwaay boobu di xaar bés penc bu mag bi nga xam ne ci la ñuy àtt lépp ñooñ aljana dëkki aljana ñooñ safara dem safara yàlla nañ ci yàlla musal ci ñooñ safara ñooñ seen gannaaw ñi ngi ci barzaq digal boo xam ne mbugal ak jafe-jafe lañ fay nekkee boo xamee uslubu alquran loolu doy na firnde ci mbugalum bàmmeel kon aay yi bari na lii mbir tey mbir mooy góor gi Ahmadou Dramé ak mbooleem ñiy weddi mbugalum bàmmeel ak ñi ciy sikk sàkk ak di ko sikk sàkkloo nit ñi dañoo nekk ci njuumte waaw donte nag bëgg bëgg bëgg a dëggal seen weddi googu mooy tax ñu dàq xadis yi ci ñëw yëpp te xadis yi sëñ bi ay ay sawaabit la mutawaatiraat yoo xam ne xadis yi doy na kenn mënu koo weddi waaye gaa ñi tàmm nañ fuñ bëggee weddi lu sax tuumaal boroom xam-xam yi ne xa tuumaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne xadis nangam nangam wax naa leen ba tey yow yàlla wàcce wut yow alquran kan moo la jox alquran yonent yàlla muhammad ku la jox xadis yonent yàlla muhammad nga ne da ngay doylu alquran bàyyi fi xadis kenn la moo la jox ñaar yëpp nga ne ko benn bi laay jël waaye benn bi awma ci soxla bëgg a tàqale diggante yàlla ak yonent bi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa diggante yàlla ak ay yonentam te yow loolu ngay wax même boo ko gëmoon bu doon dëgg la ci yow wallahi képp ku wax ne da ngay doyloo alquran ngir xadis nangam nangam léeg-léeg nga dégg ku borom àll ju gàtt naan la xadis yi am na yu wérut am loola du xadis lépp loo xam ne wér nga ne lii wérut loola du xadis loolu am na yeneen tur ay mawdu ak daif ak yeneen tur la waaye du xadis du sunna xadis sunna mooy li wér bàyyeekoo ci yonent bi moo tax maye la bu doon dëgg la ne da ngay doyloo amoo soxla ci xadis amoo soxla ci sunna boo ubbee alquran jàng alquran moo la daan hëy dellul ca xadis ya dellul ca sunna yàlla ne la wa ma aataakum rasulu fa xuduux wa ma nahaakum anhu fantahu wattaqullah yonentu bàyyi noonu lu mu jox jël lu mu leen tere bàyyi leen ne leen laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana mu ngi noonu mooy royukaay bi yow nga ne moom ay xadisam bokkuñ te ci xadis yooyu nga ko mën a royee ci nga mën a xamee ay jikkoom ci nga mën a xamee ay jëfam mën a xam ay waxam man koo roy boo doyloo alquran comme ni nga koy waxee alquran moo naan la dellul ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla tànn jox ko alquran ji moom la sas ne ko leeralal alquran ji moo leeral alquran ji moo tax wax nañ ko ba tàyyi sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadisam ay waxam ak jëfam ak ay taqriraatam yiñ jëlee ci moom te muy lu wér yooyu mënta ñàkk ci diina ji weddi ko mooy weddi yonent bi toppil yàlla foo jëm ndax da ngay jóg naaw wala da ngay jóg da jublu penk wala soow wala da ngay xar suuf si dugg ci fan nga jëm ne da ngay topp yàlla toppal yàlla noo koy toppee loolu yow jullit bu da nga ko war bopp rawat na ñii foo ci seen xel naan xel nangu lii xel nangu lii di fooyee seen xel yi ngir weddi lislaam ak di weddi xadis yi toppal yàlla mooy lan waaye waaye wax naa la ko ba tey mooy demal nga jàngi alquran gii nga jëfee ko wa atiu rasula toppal yonent bi mooy lan jàngal sunnaam nga jëfee ko kenn mënta jël ba bàyyi sunna loolu ay caaxaan la ay caaxaan la aw yoon la jëm ca ilxaat mulxiduuna yëpp fii lañ jaar mulxiduuna yëpp fii lañ jaar wax naa ko waxaat ko am na benn mulxit buy wax ne moom lu tax mu génn ci lislaam lu tax mu weddi yonent bi nee na dafa gis ne yonent bi day bokkaale yonent bi day day bokkaale ak yàlla ndax fu mu ne fu mu jàngalee